billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammadin almakin wa alihi wa sahbi zawi ridwan wa tamkin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mboolom Majmahun Nurayni ñu ngi leen di baax di leen ziyaare di jiital ci nuyoo bi a cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi la tànd ko wér ba ñu ngi nuyu suñu caméraman bi muy Serigne Bara Gueye di ko ndokkeel ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy taxaw émission bu Buruur nga xam ni dimanche bu nekk rek day bàyyi yitteem yëpp rek nekk ci di ñaan suñu borom defal ko tawfeex ñi ngi nuyu bu baax tamit ki nga xam ni moom lañu fa yéenee dalal tey jii muy suñu sëriñ euh, muy sëriñ Issa Mbacke di ñaan suñ borom yàggal ko fi loolu te ànd ko wér ba naal yi nga xam ni naal na ko ngir liggéeyal ko lislaam ci alquran liggéeyal ko Serigne Touba liggéeyal ko maamam yi tedd yi ñu ngi ñaan suñu borom defal ko taw fexe ba mu àggale ko kon moom lañ fas yéenee dalal tey ci émission jaalibatul buruur euh, di ko jox kàddu gi bu ko defee mu nuyoo gannaaw ba après dinañ ñëw ci wàllu thème bi wàllu waxtaan wi bisimilah. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayyidina muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi imaanin wa islaamin wa ihsaanin ila yawmi diin wa ba'du ayyuha al ixwatu al imaan wal xaqida ayyuha al ixwatu al muridin wal muridaat nuxayyikum bi tahiyatin islaamiya tahiyatan tayyibatan mubaarak ala assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa nuxaddimu tahiyaati wa taskuraati alxalifatul haam di taifatil muridiya assayidi cheikh Mouhamadin al Muntaxa Mbàkke xafisawullah mbokk yi gannaaw nuyoo boobu xam naa ñi ngi gàttal kàddu gi foofu dellowaat suñu mbokk mu baax mii gannaaw bi ñu leen waxee ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ci bërëb bi ngeen ñëw waaye sant leen ci seeni taxawaay ci liggéey bi mboolem mbooloo maj mu nooree ni rawatina it émission bi nga xam ne yaa ngi koy def tudde ko jaalibatul buróor ñu koy siifur lu bare bari eh, di ko jot nga ciy dalal ay boroomi xam-xam tey na nga ñëw fii ngir war ànd ak ñun liggéey bi kon sañ seen ñu delloo la kaddu gi. kon mbokk taalibe li ñu ko waxee woon tey ñu fas yéenee dalal Serigne Issa Mbacke di boroom xam-xam di jàngalekatub alxuraan di jàmbaar loolu ci alxuraan ak xam-xam bokk ci njabootu Serigne bi di doomi Serigne Cheikh Mbacke. mu sëriñ Abdou Khadim Mbacke dañ ko wax sëriñ Abdou sëriñ yaakaar naa mbokki taalibe yi bari xam nañ ko ñiy suivre tamit mañ Majmahun Nurayni TV dinañ ko xam di jàmbaar loolu di yaatal xam-xam loolu man mii yor micro bi di wax ak yéen bokk naa ci ndongaam yi njëkk a ñëw di jàng majalis muy téere xam-xam yi euh, tàmbalee tasawud sixaar ba masaalikul jinaan moom mi moo ma ko jàngal booleeg téere euh, feq yu bari kon man ci ndongaam yi nga xam ne ji jiitu ci moom ci laa bokk te loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax baax di ko ciy sant di ko ñaanal suñ borom defal ko taw tawféex tey nag li nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane muy alquran ak daara li tax ñu tàmm tànn thème bi dafa doon actualité li euh, arab naan al ghazw al dañ cee toll muy bataille psychologie ñu gis ni ñi nga xam ni dañuy yàq lislaam côté bu ne jaar nañ ko ci bañ ko jaaree ci ngànnaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jàmmaal ñoom ba taxaw lislaam saxaaba yi jàmmaal ñoom ba taxaw lislaam mooy futuxaat yi def waaye dañoo dem ba gis ni yoon woowu mënta dem ñu fas yéene koo jaar ci bataille psychologie mooy di jénne euh, xeet yi kii yoo xamante ni day saboté ñiy jàng alxuraan ak ñi koy jàngale fas yéene daal taxaw maanaam côté bu nekk rek ñu jaar fa ngir fas yéene mabal alxuraan euh, te li sëriñ bi wax sànq rek ci sëriñ bi li wax ci nax ju mooy alxaq thabitun wa amal baatilu fa in ala fa zaiqun wa saafilun alquran nag suñ borom moo ko njëkk sàmmal boppam waaye gannaaw nag loolu am na ñu mu ko jox maanaam jox leen ay ngàndaay yuñ koy sàmmee sëriñ bi bokk na ci bokk na ci lu mu dox naan inni ujahidu bil ulumi wa bi a abdan xadiman wal muhayminu shahidu dama fas yéene jihaad ci euh, xam-xam te loolu suñ borom seede na ko moom mi nga xam ne suñ borom da ko sàmmuloo alquran muy sëriñ bi gis nañ niñ ko sàmmee moo tax nag tey fas ñu fas yéenee ñëw waxtaan ci alxuraan ak daara yi nga xam ni ñooy jàngale borom xam borom xam yi nga xam ne ñooy jàngale alxuraan ni ñuy dundee euh, alxuraan ak donga yi nga xam ne ñoo koy jàngale. comme ni ko sëriñ bi waxee sànq mooy fii daara toll ak ñooñ daara ak ñi nga xam ne ñooy jàng daara kon xam naa tomb bu njëkk bi day jëm ci loolu mooy euh, fii euh, njàngaleem alxuraan toll ci daara yi ak jafe-jafe yi nga xam ne ñoom. jàngalekat yi ñu ngi koy dund ak dongo daara yi bisimilah Mbacke. ok jërëjëf sëñ Sayid gannaaw bi ñu jàllalee nuyoo bi mm, dellu siwaat woyal waxtaan wi fas yéene ànd ak yéen comme ni nga ko waxee ci tomb yooyu muy tomb yoo xam ne yu mat a waxtaane la rawatina it nag eh, ñi nga xam ne ñoo ci nekk muy doomu daara yi kenn wërta jël waxtaan woowu jiitu leen ñoom defee kon ñu fas yéene tàmbalee suñu waxtaan ci maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci daara yi tàmbalee ko ci jàngalekati alxuraan yi bu ko defee ñooñu dana am nu ma ko seddalee maanaam indi leen ñetti jàngalekatu alxuraan eh, bu njëkk bi maa ngi doon misaal eh, ci defukaayu ndox maanaam yoroon naa ñaari biteeli ndox boo xam ne dañ koo filtré mu nekk bu set bu sal ma ne bii laa njëkk a jël muy jàngaleket bi njëkk beneen bi itam mu xaw a am ak mu taq boobu nag dama ko seddale ñaar ci waxtaan wi séddale gi ma ko séddale ñaar mooy bi taq te dañ koo taqal ak bi taq te kenn taqalu ko moo taqal boppam bu ko defee ci tënk bu gàtt incha allah bu ko defee ñi nga xam ne ñoo nekk ci alxuraan eh, li njëkk rek mooy ñu xam ñooy ñan yow mi nga xam ne yaa jóg ne dangay ngay jàngal alxuraan ndax yow dafa am looy looy jàllale dafa am message boo war a jàllale yaa war a yor yaa war a jàllale leeru suñ borom bi boo demee ci alxuraan sax yi suñ borom naan allazina yuballighuuna risalatillah wa yaxsawna wala yaxsawna ahadan illa allah wa kafe billahi xasiba ca suratul axsaab aya loolu la nga cey jàngi rek mooy jàngalekat alxuraan bi njëkk nañu nañu na na ragal yàlla feeñ ci yow ci li ngay def ragal yàlla googu nag bu xasee am dootu am lenn loo ragal lu dul suñ borom mooy waral yii ñuy junj ci ay mettit yii ñuy junj ci ay ay nattu yooyu yëpp dafay nekk lu oyof ci yow ndax yow njëkk xam nga li nga nekk mooy lan bu ko defee moom laa wax ne jàngalekat alxuraan lu njëkk a xam mooy kan xamit lan mooy rolam xamit li mu war a def tënku ca loola. bu ko defee nag eh, boo boo xasee xam loolu xam eh, itte jox ko itte yaakaar naa ne yu ca baree bari eh, yow buy buy buy yàqit mën nga caa mucc bu ko defee kon jàngalekat alxuraan bu njëkk bi moom laa wax ne mooy bu set bu sell boobu war a eggale. misaasu suñu borom bi bi nga xam ne moom la fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi misaas bi nga yor nag ci biir lettre bi yow mi ko war a jàllale daa am luñ ci bind xam nga bu fekkee nit dafa bind lettre jox la te lettre bi mu la jox concerné la yaa ñi ngi ko yóbbul soit da àgg da ngay dem àgg jàng ko ci seen kanam nga dégg bu dee lu ñu war a def la nga def ko bu dee lu ñu lu la nga bàyyi ko ci biir lettre bi daa am lu ci luñ luñ la ci wax loolu danaa ci ñëw xeetu mbon bon yii nga xam ne dañ koy tudd di ko moomala ñun dara képp koo xam ne sëriñu dara nga dara waru la ci laal ndax xoolal ci biir lettre bi suñ borom ne la wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xëy na sax mën nañ ma may yi ma bëgg wax ci ayaat ma moomale ko rek ñooñu alxuraan ngir wax wax ji gën a def direct ci ñoom moo tax bu ma waree wax ne julli ñi sax da nga may ma ne rek yow mi war a jàngal alxuraan maanaam qul lil muminina yaquddu min absarihim wa yaxfasu furujahum saalika aske lahum la suñ borom wax loolu jullit maanaam kon yow mi jàngal alxuraan tey góor wax jooju yaa ko moom li njëkk suñ borom ne la na nga damm sa gis maanaam wattandikul di xool lu araam jàngalkat alxuraan bu ci xasee tënku rek yaakaar naa ne am na yu baree bari yoo xam ne même même bu dee ay yuñ koy tegal du tegu ci kawam mm-hmm. waaye suñ borom nee na nga sàmm sa bopp na nga wattu sa bopp muy jàngal alxuraan bu bu góor bi waaye yax na mi na qul lil mu'minaat yaqdudna min na wa yahfazna furujahunna ba tey jàngal alxuraan yu jigéen ñi dañuy ñëw dugg ci foofu mooy rek jullit ñu góor ñi ak jullit jigéen ñi laa bëgg a wax waaye man maa da ñu may ma rek ma moomale ko ñoom ngir wax ji def direct ci ñoom ndax tey dañu war a waxtaane ñooñ alxuraan ñooñ daara bu ko defee bu fekkente ne bii lii am na leetar bi ñaare jàll na ci muy ragal yàlla gi mi ngi ci jàngalekat bi ñetteel bi tere bii mu ko teree yër nga lettre bi xam ne mi ngi ci ñeenteel bi ci alxuraan ba tey suñ borom ne am na benn ñaawteef boo xam ne waxulu sax ne bu ko def mhm. waaye daf la wax ne bu ko jegee te kenn ku ne xam nga ne yaa ngi gis ñu koy tuumaal ñooñ dara mhm. suñ borom dafa wax ci alxuraan ne wala taqrabu zina mhm. innahu kaana fahisatan wasa sabila maanaam bu leen jege c'est suratu suratu nisaa yi aya 32 xam nga bu fekkoonte ni bii dana la bul def sax mën ngaa jege ñum te fekk la ca waaye def na la bul jege kon yow jàngalekatu alxuraan bi boo jëlee bi njëkk muy ragal yàlla gi mu nekk ci yow nga jël ñaareel bi muy dam mu gis gi sàmm sa bopp nga jël ñetteel bi muy loolu mbon googu ñu lay ñuy teg ay tuuma ci ñooñ daara nga sori ko doo ko jege yaakaar naa ne muccukaay dana la yomb violence yi ñuy wax nag léeg-léeg itam ci ba ba bakkante ca des itam mu ne la wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bi xaq bu leen di bu leen di maam ray bakkan ci lu dul dëgg yow jàngalekat alxuraan bi laa ko moomale waaye mooy julit bi yooyu yëpp nag di ay tere yoo xam ne man dama ko moomale mooy jàngalekatu alxuraan bi nga xam ne man moom laa jëkk a muy ndox bu sell bopp ma wax yii bu fekkente ne bii yow jàngalekat alxuraan bi xam nga sa responsabilité xam li nga war a def mooy lan xam ne kat yow lii la la yàlla wax ci lettre bi mm-hmm. pour nga joxe ko day yomb mm-hmm. bu ko defee nag yeneen ne ci topp yëpp nag ci ay ci ay kii la bañ a laal mm-hmm. te dañuy wax ne nit ki lépp lu bëgg da koy wuute ca la mu nekk maanaam bu fekkee lu baax nga bëgg dañoo xam ne ku bëgg lu baax lii boo demee ci min hikmati Sayxul Xadim bi nga xam ne Rawdu Rayaahin ñoo ko liggéey am na ci luñ cee wax lu yaatu képp koo xam ne da bëgg dara lu baax nee na na nga ko sakkoo ci topp yàlla waaye képp koo xam ne dafa bëgg mucc ci ragal nee na na ko sakkoo ci wattandiku mooy yàlla kon jàngalekatu alxuraan bi ma njëkkataan daal sëñ Sayid mm-hmm. mooy bii ma yi fóot boppam mu sell lool boobu daal jàpp naa ne mooy bi ma njëkk a tànte boobu laa moomale sax daara mooy kon ndox mu sell mi nga xam ne moom dafay sell abadi du ma sa tax yàlla nañu ko yàlla defal. waaw koy Mbacke. Mm-hmm. jërëjëf comme mm-hmm. loolu dégg nañ ko bu baax a baax a baax mm-hmm. muy message boo xamante ni dafa jëm ci ñiy jàngale alxuraan ndax euh, koo xamante ni daanaka noon yi wër nañ la fu nekk. maanaam yëngatu bu ndaw rek loo def rek ñu mm-hmm. tuumaan la ci mm-hmm. kon war ngaa xam sa bopp bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. te xam ne li nga yor maanaam message la boo war a jàllale muy téere muy waxi suñ borom comme ni ko borom xam-xam di waxee dafa doon wax ju màgg joo xam ni bañ na ko lu mu laal rek loolu day màgg ndax alxuraan comme dafa wàcc ci euh, suñ borom la bàyyi ko ci kim ko jaarale gën ci malaayika yi mi ki yoroon wax bi muy Seydina Jibril ki mu ko wàccee gën ci gën ci mbindeef yi muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bërëb bi mu ko wàccee gën ci muy xayrul xurum yi muy makkatal mukarrama euh, weer bi mu ko wàccee muy cheikh ramadan gën ci weer yi guddi gi mu ko wàccee muy laylatul qadar muy gën ci guddi yi kon loolu ku ko ku ko yor muy amaana la maanaam kóolite la goo xam te ne yow mi nga yor di ko di ko jàllale war ngaa xam li nga yor bu baax rawatina nag boo tombee jamono boo xam te ne dangaa tombee fañ koy xeexee fa nga nga xamante ni lañ koy gën a xeexee di la gàllankoor ngir bañ a àgg kon sëriñ bi ñëwal nañ ci melokaanu kiy jàngale alxuraan ki yor daara di jàngale alxuraan hmm. melokaan yi mu war a mel hmm. nga xamante ni donga bi mën na di roy ci moom hmm. te du jar sax waxam di bari kon dañuy ñëw ci ñaareelu tom bi Mbàkke mooy jafe-jafe yi nga xam ni gis nañ ni maanaam daara mi ngi koy dund loolu booñ ci mënoon indil maanaam lan moo ko waral ak yan solution nga ñu ci jox ba jafe-jafe yooyu mën a deñ waaw ba tey xam naa comme sa laaj bu ñu ko déggee jafe-jafe yi daara dund nag xam naa ne moom daanaka ab jukki la waaye dama koy boole rek ci nattuy liggéey bi mu yoo xam ne tam des ko am na ci yoo des ko war a muñ te xam ne kiñ jaarale wàcc gi téere bi ci moom daj na loo dajut bu ko defee xam naa dama ci dama ci balaa mu ci ñëw danaa ñëw ci mhm. eh, beneen bi muy ñaareelu Euh, sëriñ maanaam daara bi. ñaareelu ñaareelu mooy làmbaale lii sax nga laaj. waaw incha ndax mooy biteel bi ma wax ne. Mhm. moom dafa taq. Mhm. waaye dañ ko taqal kon booba nattu yaag. Mhm. jafe-jafe yëpp day dugg foofa. Euh, li njëkk ci kooku rek mooy. mu xam ne. sun borom dafa wax ci alxuraan ne. Euh, alif laam miim ahasiba naas. ay yutraku an yaqulu amanna wa hum yuftanuun ndax nit ñi dañoo njortu ne. dañ naan gëm nañ yàlla rek. te kenn du leen nattu suñ borom nag ak nit ñi sax léeg-léeg ñu natt la mm-hmm. léeg ñu nattu la mm-hmm. natt ak nattu nag xaw na am différence tuuti ci maanaam mm-hmm. waaye boo am na foo koy déggee day nekk benn mu ne nag wala xad fatana allazina min qablihim fala yaxlamanna allahu allazina fala yaxlamanna allazina sadaqu wala yaxlamanna alkasibin nee na nattu woon nañ ñi leen fi jiitu woon ba xam ña ca dëggu xam ña nga xam ne ci nar lañu nekk loola itam dafay ñëw ci jamono ju nekk dafay ñëw ci jamono ju nekk mooy butéel bii nga xam ne dafa set lool ñu filtré ko mu nekk lu set waaye mu jekki-jekki ñu tilimal ko loola nag ba tey suñ borom am na fu ñu wax naan ñi nga xam ne ñooy jël ay tilim tilim ay ñaawteef di ko sànni ñi ñenn ci julit ñu julit ñi moo xam julit ñu góor ñi lool jigéen ñi nee na ñooñe day yanu nañu aw nar ak bakkaar bu màgg loola dangay gis ne fi jamono toll bari na lool loo xam ne ñi ngi koy ñi ngi ko euh, ñu sàll ñoo xam ne. Mhm. ña nga leen di tilimal. Mhm. te fekk ne sax xëy na loola nekku fa. Mhm. loola nag la ca jiitu rek mooy yow jàngalekatu alxuraan li ma ko waxee xam ne ak muñ dafa war a nekk ci yow. dëggu dafa war a nekk ci yow ba nga xam ne nattu fu mu mën a ñëwee. lu tax mukk nga soppi ko. du tax mukk nga sensé li nga nekkoon lu tax mukk nga nekk ci loo nekkul woon. jafe-jafe yi bari na ñooñu nag. Euh, solution bi ma ci bi ma ciy joxe euh, wax naa ko moo dina rek ki nga xam ne dafa dafa toog nattu dal ko muñ war na ko ca war nañ ko jàppale waaye même bu deen bu jóge ci wurtu tax mukk mu yokkat wala mu tey ca yoon wa mu nekkoon ndax tey mën naa laa limal ñu baree bari ñoo xam ne tey nattu bi dab leen te sax xam naa leen am na am na tey koo xam ne ñu wax sañ Fallu alxuraan mën nañu tudd tur bi xam nañ ko bu baax mu jaaroon ko sëñ Souhaïbou moom bis dafa jóge ci benn dëkk di dem oto bi mu dugg ñu arrêté leen bi ñuy visité far am na ci saag buñ ci gis rek ñu gestu ne ko keew moom saag bi nee na aram ne man saag bi moom ma ko nee na it bañ koy yustee lañ ci fekk xaw moo nu mu mel waaye loolu fekk yóbbu nañ ko ci kaso mu am fa diir ba wax nañu sax moom wax na bopp waxal na bopp ne ci biir kaso bind na fa ñaari kamil loolu kon da koy jàppee natt mën naa la ci tudd ba man sama jëmm man mii mm-hmm. natt yoo xam ne daf na ma ci liggéey bii mm-hmm. waaye yëpp mooy li ma la wax rek muñ gu njëkk gi mm-hmm. te moo di ne fii ci daara ji yu njëkk ji mas na bis ñuy jàngale am ci xale boo xam ne dafay jàng di dellu seeni kër bi mu waree bi mu mu fanaanee seen kër am feebar dab ko mbokk yóbbu ko hôpital bi mu demee ñu seet ko mu doon nelaw ñu ne leen dañ ko duma te boobu moom fanaanul sax ci daara ji bi nga xamee ne ñëw nañ wax ma ko bu ñu xëyee man it ma jël engagement dem hôpital ba seete ko bi ma àggee ma jël mboolem li ci war a liñ ci war a def ci ay ñu ko war bi ma àgsee au bi ci sensé mu ne ma lii ci xew wax na ko bokk yaayam waxuma ko daf ma la ko ne ma rek jàmbaar nga di kii di booba léegi mi ngi yaa koy jàngal nangam daal mi bàyyi ma dem ma fay li ma war lépp gën dem bi ma génne lañ ma doog a déclaré ne ma nee nañu nangam la fekk boobu ñëw naa ci daara ji ma wàññi ko waat delluwaat ci hôpital heureusement ba lay fekk directeur bi ex kooku dafa ay woon garde ma wax ak moom ne ko dama fi ñëw léegi ñu wax ma ci benn xale li ma ci wax nag moo tax ma ñëwaat mu ne ma nu mu tudd ma ne ko diw mu ne ma mu xool carnet bi gisul turam dèjà xoolal foofu rek moom liñ ko fay tax na enregistré turam ci kay bi bi mu fanaanoo kon xëy na maanaam fay gaat fay gañ ko fay la ba ñu mën koo xam moo tax enregistré turam beneen bi mu ne ma lu mu doon ma ne ko dañoo déclaré nang mu ne ma day maanaam loolu de même amoon sax ñu ko déclaré ci poste bi loolu restaurant la ko war a déclaré man nag bi ma génnee dama ne mbokk yi damay porte plainte ñu topp ma ci dara ma ci ne ma déedéet lii bu am nangam amoon ñun xam nañ la nangam ma ne leen yéen bu lii amoon tey bu ci dogal fekkoon tey kenn mënta seetal dara ji damay taq ba faw ngir misaal la ne yooyu dana faral di am waaye mooy li waxtaanu njëkk yi mën la rek lu mën am yow mi nga xam ne yaay sëriñu dara bi te xam li la war te tënku ci rek am na yu baree bari bu amee da nga ci na fekk nga fegu bu ko defee nag natt yooyu dafa laaj dafa laaj muñ ay jafe-jafe la waaye yooyu itam dafa laaj yow mi nga xam ne yaa nekk ci dara ji lépp loo man nga def ko ndax yow yaa yaa soobu ne da ngay da ngay da ngay dangay da ngay jàngale xam ngay xëy na méttit yi nga xam ne mi ngi ci benn ndax boo xoolee ci sunu réew xëy na ginnaawal nañ ko ñu bari xëy na taxawaay yi lañ ci war defuñu ko boobaa nag yow yaay volontaire loo man nga def ko ci ci sa moyenu bopp loo mën nga taxaw ndax loolu sag boobu ngay def dara yaa ngi yaa ngi dindi tuuma par exemple tey buñ ne buñ ne daara dañuy tax ak tilim mm-hmm. fexeel ba xeex ci tax ak tilim boobu mm-hmm. am na loo xam ne sëriñu daara bi moo ko war a yanoo mm-hmm. mooy wartee fam muy jàngal ak yacaju waaye am na loo xam ne way jur yee ko war a yanoo ki njëkk sax ci eh, ki ko war a yanu dëgg-dëgg moom bu fekkee ne wax nañu li am état boo demee ci yenn réew xëy na ni ñuy taxaw école yi taxaw la ñuy taxaw daara yi waaye xëy na bu fekkee suñu réew côté boobu xew naa des léegi nag way ku bëgg sa doom jàngal xuraan boo ko yóbboo nan ko taxaw ki leen koy wax nag mooy sëriñu daara bi waaye bu fekkee da nga yor daara yow sa jëm bopp mu leer na yan bi attanoo ko ba noppi waxoo ko wayjur yi da ngay sonn sonal xale yi kon da xool li ci sa responsabilité yow nga def ko loolu solution la li ci sa responsabilité yow na nga ko def li ci responsabilité parents yi nga teg leen ko responsabilité xale bi ba mën na ca bañ a bari mooy nañ ko jàngal nañ ko yar nañ ko teg ci yoon condition yi muy nekkat na baax loolu jàpp naa daal bu ko daara defoon bari na ñuy jàmbat sax du jar jàmbat ndax nag jàpp naa ne bu fekkente ne bii mbooloo nga dajale bu fa par exemple bu doon téeméeri nit nga ne nga ne kenn ku ci nekkat la muy jëfandikoo na ko waajuram def mu di ko def yaakaar mën naa am sax du génn di koo wuti feneen bu dee leneen lu manqué la nga ne ko waajuram lii moo ko ndax dangay ngay xool ne doom ji nekk ci daara ji ak doom ji nekk ci kër ga benn lañu doom doom la na muy taxaw ko ci kër ga la war a taxaw ko ci daara ji loolu nag yow sëriñu daara bi yaa ko yox boo ko mënut waaye doo ko ñàkk a mën ba noppi nag yenul ko sa bopp waaw mën nga sonn mën nga sonal daara mën nga sonal sa bopp loolu mooy waral boo ñëwee tey ñun fii bari na tey lu baree bari ñu ngi koy def ci daara ji lañ ci nam rek mooy lii ñuy jàmbat ci daara ñu bañ a bokk ñu koy jàmbat fexe ba ñuy joxe solution yaakaar naa ne ñu baree bari ñu ngi koy wax ci daara ji ngi ni ñuy taxaw xale yi ak ni ñuy fexee ñuy set ak ni ñuy masalla yu ci baree bari loolu la ca war rek mooy man dama ne bay ci sa yow tànk bu ma bu ma bu ma génnoon gis lu ma naqare ci ci ci ñooñ daara du ma ne dama ko dama koy wax di ko jàmbat naan état nangam damay fexe tàmbalee ko ci sama daara bu dee ak tilim laa yam ma fexee ba ñoom ñuy set bu dee rafle la ma fexe ba ñoom duñu rafle bu dee nag leneen la ma fexe ba xeexal leen ko yaakaar naa bu ma ko defee kenn xool ci exemple boobu rek day jàll tey bari na loo xam ne def naa ko ci daara ji bari na sëriñ daara yoo xam ne tey jii ginnaaw yàlla ña ngi koy def ci man lañ ko jëlee bi ñu gisee image dañu ah sëñ bi lii de rafet na lii de danaa ko def ba ci yére yi ñuy solo xale yi bari na tey daara yi ko ba ci sama rek sëñ Saliou fa Touba suñu doon daaraam ña ngi koy def yére yi xale sol burus yi tani yi xale yi sol te naa ne sonnalu ma may def xale yi bu ñu xëyee def ay boros nangam nangam di set daara dañ koy def xëy na ku ko mës ku ko defu da nga naan loolu nuñ koy defee loolu mënuñ ko mënuñ koo saxal waaye te fexe naa ko ci système boo xam ne waajur wu nekk mën nga ko la ma ci ma war man mën naa ko te xale yi macha ko ñi ngi ko yëg kon daal yooyu ay solution la yoo xam ne jàpp naa itam euh, buñ ci am na ci yoo xam ne danañu mën a dimbale ba jàmbat yi du bari ndax néewul na lépp dañ koy jàmbat nañ fexe liñ mën suñ bopp ñu def ko liñ mënul suñ bopp itam ñu xool mbooloo mi siq alxuraan jullit ñi siq alxuraan ñu xool naka lañ koy taxawu ba loola of la des nag suñu état xëy na ah adduna dana mën a dox masa dox ba la war ci seen doom jii di daara ñu def ko loolu daal jàpp naa ne incha allah bu ñu yàlla dimbalee man naa bu ñu doxee tuuti la leen war danañ ko def incha allah. macha allah Mbacke jëf kàddu yi leer na comme ni mu ko waxee rek kon maanaam joxe na euh, li nga xam ni mooy indi jafe-jafe ci jafe-jafe daara yi joxe na ci tamit ay solution waaye comme question bi ma bëggoon laaj la. Mm-hmm. nga tontu ma ci comme. ndax wàllum yalwaan bi nii hmm. dañ ko dafa war dafa xale bi daf ko war a def par force hmm. wala dafa am lu ngeen ci jublu ba tax ñi koy yalwaan lu ndax gis nañ yow sa daara yaakaar naa duñu du ñu yalwaan hmm, maanaam xale yi dañuy jàng alxuraan comme yaakaar naa kon méthode bi Serigne Saliou Mbacké mm-hmm. euh, di yoree daaraam mm-hmm. yaakaar naa ci nga yoree sa daara ah, léegi question boobu ma bëgg nga tontu ma ci après ñu ñëw ci mën xëj tarba tarba bi bi nga xam te ni mooy pédagogie bi nga yor di ko jàngale ak méthode bi nga yaree xale yi léegi comme wàllu yalwaan bi mm-hmm. ginnaaw gis nañu ñiy xeex daara ci rawat na jamono bii rek yaakaar naa yàggul matul ay semaine uh-huh. ñetti artistes yoo xamante ni dañ leen a bindal benn scénario wax ci euh, daara yi hmm. xëy na kon li ñu ci jublu mooy yàq yàq xelu nit ñi hmm, hmm. ba kenn dootul mën a yóbbu sa doom daara léegi bu dee wàllu yalwaan mi ndax dafa am lu muy def ci xale bi wala xale bi mën na koo bañ a def te teewul dina yaru te dina jàng waaw xam naa kenn ku nekk ak méttitam laaj nga laaj bu am solo nag laaj nga laaj bu laaj bu xaw a xaw a xaw a sensible li koy waxee ndax wax ci dana xaw dana xaw a dana xaw a jafe waaye pour man ma wax ci du xaw a jafe ndax borom daara laa maanaam man foofu wuute na ca gis-gis ñu bari man dama jàpp ne buñ jàpp ne mënu cee ñàkk. man nag ci sama njëlbeenu daara damay wax ne ci système mu système mu doxalinu daara. maa ngi ciy roy sëñ Saliou ak sëñ Souhaïbou. yàlla defal na ma tawfeex ñaar daar yëpp jaar naa ci. waaye gisuma ne mënu cee ñàkk. man loolu laa njëkk a gis. xëy na kenn ku nekk na méthode ba ngay def. ba duñ ko def foofu la wuute amee. man système bi ma def ba tax na kenn du ko fi def. Hmm. yaakaar naa ne bu ko daara yëpp defoon. Hmm. mën nañoo dem boobu comme dafa doon point bi ñuy xeexee. Hmm. nañ xool nañ xool naka lañuy ñuy defee ba ba xare yi dootuñ ko def. ndax man de gis naa ne du lu ci mënta ñàkk. te gis naa ne it am na noo xam ne boo ko defee. dana doon li ñun effectivement wax nga dëgg. ñun fii duñ ko def. néewut ne nag dama koy dàq di ko xeex wala nangam déedéet. ñu bari sax léeg-léeg buñ bu may wax ak ñoom ci lu mel noonu dañ naan xëy na moyen bi nga am amoo ko wala moyen bi nga am ñëpp amuñu ko fekk aw man man naa xam ne aw ma moyen waaye dama dama dama jël rek ne dafa am lu ma war ci xale bi di sama responsabilité am responsabilité woo xam ne waajur wu la war du ko ko teg dilo te mënuma ko loolu laa laa gis ne ca laa doxe ba macha te daara ji yalwaanatuñu waaye niwut ne yalwaan daa mënta ñàkk ci dara xëy na am ñoo xam ne dañoo gis ne daa am lu muy def ci xale waaye man jàpp na li nga bëgg a def ci xale bi ci jikko yëpp mën nga ko def ci moom mhm. ci lu dul sax mhm. baax ji nga bëgg a ci xale bi ak tarbiya bi nga bëgg a def ci xale bi mhm. yëpp mën nga ko def ci moom te sax lee du ko def ndax yaakaar naa ne boo ñëwee fii mboolem tarbiya boo xam ne jàpp nga ne bu génnee ci mbedd mi yàlla moo ko mën a may jàpp naa xale yi masha ñu koy am te defuñu ko kon nag loolu système la boo xam ne man gis naa ne bu ko daara yëpp defee yàlla mën nañoo dimbali ba at yu néew li fi yalwaan daal mën naa bañ a bari xëy na des ko ma defee nag du ci euh, maanaam dëkk yëpp ak bërëb yëpp ak ñëpp ko man waaye man de système bi ma ci yor te ku may waxtaanal danaa la tegtal système boobu ñu def ko ndax dafa doon point bi nga xam ne dañu ciy xeex dafa doon point biñ ñuy xeexee il faut kon ñu xool ban solution lañ ci war a def ba tax na tey ndax xoolal sëñ Saliou kan moo ëppale dong sëñ Saliou man fa laa jaar jaar naa fa suñu daara suñu daara ji nekkoon képp nangami junni dañ fay nekk mhm. te kenn du kenn du ko wuti waaye système bu mu teg mhm. ba tax tey gis nga macha allah. Mhm. sañ Cheikh mii ko wut tam gis nga ko macha allah. yaakaar naa ne daara yi gisoo jëmu ci benn daara gis ni dañ koy def. kon bëgg naa foofu sama mbokki sëriñu daara yi. ñu seetaat ku baax danaa joxe benn benn solution. maanaam yow mi nga xam ne danga ubbi daara. waroon na mën a jël téeméeri nit. te mu leer na téeméeri nit yi boo leen jëlee. loolu da loolu du mën a du mën a doo mën a dundal. Mm-hmm. maanaam benn jëlal juróom fukk. Mm-hmm. wala nga jël ñaar fukk. ñaar fukk yooyu bu la wéeree na sax mënoo leen a dundal. Mm-hmm. defal fukk maanaam fexeel ba yow daal li nga bëgg a liggéey li nga bëgg a liggéey ci alxuraan def ko. te du tax mukk nga nga lor xale wala nga nga nga teg nangam. man jàpp naa ne même boo ko defee bu fekkee ne sax ay junni nit nga yor itam fexeel ba li maanaam kenn ku ci nekk la ko war na ko def rek. muy yow muy waajur muy nangam waaye man gëw ma ne yalwaan dafa mënta ñàkk ci daara kooku moom bokkuma ci ñi koy doxee système bi nga xam ne nag man gis naa ko teg naa ko ba tax du ma ko def ah moom laay conseil ku nekk ndax man li ma jàpp daal la ñuy xeexe ñun ñoo war a jóg loola ñu bay suñu kem def suñu kem kattan moom xale yi toujours na leen daara taq tilim jamono da ko weesu man loolu lay xale yi daara taq tilim jamono da ko weesu fi mu toll dañu dañu war a mboolem loo xam ne lu rafet la rek nga di ko séen ne école bi da koy def jàppal na ci daar ndax alxuraan moo laaj sell la mm. laa yamassuhu illal mutahharuun ki koy laat ki koy laal dafa war a sell la mm. donga bi koy jàng kasaalika mm. yow it da nga war a defar koo xam ne royukaay la war a doon kon bu ko bu ko def benn méthode boo xam ne ñëpp dañ koy xeeb mm-hmm. mante tey foofu liggéey naa ci lu yaatoo yaatu ba nga xam ne daanaka samay dong yi génn sax dafa am lu may def ci ñoom loo xam ne même buñ ñëwoon ci yow tey nga soxla leen mm-hmm. fekk ñu ñëw nga éviter mbooloo ñu ñëw nga teg leen ci benn fu foo xam ne daal xëy na nga jàpp ne ay ay dongo daar lañ bu ma leen fekkee ne leen jóg leen man tarbiya boobu laa tarbiya la may bëgg mooy bu ñu ñëwee xoolal fa nga teg ña nga gën a fonk te xam ne ñii kat kaddu suñu borom gi mooy alxuraan lañ yor loolu lépp dafa bokk ci tàggat bi nga xam ne boo ci tàggat ndaw ñi daa tax itam yu xam ne tey boo ko deful rek xale yi seen jëmm daanaka sax ñoom ñooy njëkk jël yoon wee ngay wax ne muy jàpp ne daara nii la war a mel jàpp ne nii lañ war a yoroo liggéey bu liggéey bu métti laaj nag mm-hmm. waaye daal ci laaj bi daal jàpp naa ne yalwaan moom néewut na daa mënta ñàkk ci daara mm-hmm. ah kay mën na caa ñàkk mm-hmm. bu fekkee ne xam nga dëgg-dëgg na nga war na nga war a doxalee man jàpp naa ne du méthode boo xam ne mënu caa ñàkk jàpp naa ne la la muy def mm-hmm. ci jikko ak nangam nga soxla ko ca am na beneen méthode bu war a teg boo xam ne ba tey dana ko wut insha allah waaw koy Mbacke jërëjëf kon kon tontu boobu dafa am solo euh, ci jëm ci wàllu yalwaan ndax comme niñ ko comme ni ko Mbacke waxee rek daa fekk maanaam l'islam day ànd ak jamono bu nekk ak na muy doxee ndax beneen bi mooy dañoo gisoon euh, état bi mhm. waxam ne dañuy moderniser daar daara yi mhm. ñu gis ni xëy na ñoom seen jéego bu njëkk bi ñu bëggoon a taxawal mooy jële fi yalwaan mhm. waaye comme nii nga waxee nii méthode bi ñoom bu ko daara yëpp xamee ba tegee ko noonu yaakaar naa seen i dongo duñu ñu yalwaan te euh, na nañ war a mel ci wàllu cet ci wàllu set ak wàllu doxalin lu dëppook jamono mm-hmm. maanaam dina ko dina dina dinañ ko dinañ ko def mm-hmm. te du leen yàqal dara mm-hmm. euh, balaa ñu ñëw ci li ma wax rek ci mooy dernière question bi xam nga état ay jamono déggoon ñu ni dañuy dañuy moderniser daara yi léegi dañoo dañuy laaj ndax maanaam modernisation boobu agsi na ci sa daara ji wala déet waaw kay laaj nga laaj boo am solo xam naa laaj bu njëkk bi sax man naa am soril naa ci waaye ba tey am nga question bu am solo boo laaj xam naa man nag damay jàpp ne mhm. gënuñ ma bëgg lu baax mhm. damay jàpp ne loolu ñu soxla mhm. man maa ko gën a soxla ba tax na duma leen xaar ñu ñëw di moderniser sama daara damay teg daara boo xam ne ñoom bu ñëwee lépp luy lu ñuy lu ñuy lu leen di naqare ci daara duñ ko fekk daanaka sax ma naa xam daal du ma leen mayaat sax ñu ne lii dañ ko fiy def ñoom ci misaal waaye nag bu dee egsi moom egsi googu amagut waaye bi ma déggee xalaat boobu man li ma wax rek mooy lii jërul coow. man bu ma doon ñooma tey solution bi li may njëkk xalaat rek ndax dafa doon loo xam ne ren ba daa sori. ñoom euh, bu fekkee ne bëgg nañu moderniser daara te xëy na ñi ñu koy seqal comprendre ñu nangul ñu ndax dañu dañuy wax nag olof nee na ku xaw ma ku ndobiin rey sa maam ndàngam. boo gisee lu ñuul daw. am na lu ñu ciy ragal ñoom. comme loolu am na ñoom gis nañ seen méthode. man man li may joxe pour ñoom. nañu xool ñoom daara bi ñu bëgg. ñu samp ko ci réew boo ñëwee ci wetu daara sañ samp fa daara boo xam ne ñii nga bëgg mm-hmm. population bi yaakaar naa ne gëmuñ ne la wuñu mm-hmm. buñ gisee ne liñ bëgg ci alxuraan bëgg ko ci seen njaboot mi ngi ci sa daara mm-hmm. te di daara yàqu nekku fa danañ jël njaboot gi jox la ah. boobaa ñun ñi nga xam ne ñoo yor daara itam buñ gisee ne lii nga yor itam xay na moo gën li ñu yor te lu baax lañ bëgg benn ñu fekk si la waaye man dama gis na si état jëru sax muy naan day li nangam na fexe ba samp ni samp école na ko samp ay daara yi boppam rek mm-hmm, mm-hmm. ci réew mi mm-hmm. waaye nag bu fekkente ni bi tey ñun ñi nga xam ne ñoo yor ay daara moom laa la xam ne ñoom gën ñoo bëgg lu baax jàpp naa ne boo ñëwoon ci daara ji ñoom buñ ñëwoon ci daara ji bari na ñu fi ñëw nag comme par exemple du ne si ñoom état la waaye yow de day mel na sax norme yi ma dégg ñoo état bi noonu la am na ci yoo ko ci ma man li ma gis mooy ñoom gënuñoo bëgg lu baax mm-hmm. te jàpp naa ne man ni ma gis ni gis-gis bi ma am ci daara ak ni ma bëggee daara mel ko mm-hmm. xëy na sax eggu ma ca mm-hmm. waaye mooy daal foo xam ne dañu fay defaree nit kon lépp lu baax tam soxla ko ci àdduna dañ ko ko war a waajalaale ba tax na kon du ñu xaar ne état la ñuy xaar mu ñu defaral ñu daara donte moom waroon na ko ci daara mm-hmm. waaye damay jàpp ne bay sew tànk mm-hmm. ba tax na man daara ji lu ma man danaa ko def ba mm-hmm. teg daara ci condition boo xam ne macha allah tey boo boo boo boo ñëwee ci daara ji yaakaar naa ne xale yi macha allah doo leen fekk ñu taq doo leen fekk ñu tilim danañ fekk ñu set fi ñuy jànge macha allah li ñuy xewloo dana doy dana mel ni war a mel tey ñu ngi leen di taxawu ci condition yu baax nekku na dañ leen di sonal wala ñu nangam yoon yooyu du fi am muy guddi muy bëccëg muy nangam loolu damay jàpp ne bu ko état soxlaa te mu leer na lu baax la ci jublu defar la ci jublu ñun ñoo ko war a gën a soxla waaye nag bu fekkente ne bi nag ñoom dañu am lu ñu lu ñu lal ci biir ci loo xam ne xëy na yàq lañ ci jublu loola moom duñ mën am liñ bëgg te mel na ne am na ay règlement yi ñuy doxal ci biir yoo xam ne yooya war nañ ci waxtaan ak sëriñu daara yi ndax gis naa ci règlement yi yoo xam ne xëy na yooyu boo ko boo ñu ko dugalee ci dara mhm. mën na ci amuk yàq mhm. yooyu ñu waxtaan sëriñ daal ndax mbir mu nekk boo ko bëggee jagal mhm. da ngay waxtaan ak ña ca nekk boo ñëwee ñu xool ñoom ni ñu gisee jox la nga dem boole li nga yor yaakaar na boo ko boolee da nga am li nga bëgg dëgg-dëgg te ñuy wattandiku itam ñi nga xam ne ñoo leen di jege ñoom te sax du ñuy sëriñu dara man nag waxuma kenn tuumaaluma kenn waaye dañ leen wax baax baax bi daara dund mhm. dañ leen wax fi daara nekk mhm. waaye ñu defee ñi nga xam ñoom accès man egg si ñoom rek mhm. te ñooñu xëy na man naa am sax nekkuñ ci daara boobaa itam danañ defar ba noppi te lañ defar daara du ko jël ndax du dëppoog daara bu ko defee kon xam naa ne daal eh, loolu yaakaar naa ne mooy sama gis-gis ci question boobu jërëjëf Mbacke ci tontu lu rafet di maanaam solution bu gaaw bi ñu ci gën a joxe rek hmm. mooy état bu bëggee moderniser daara hmm. na samp daara ji mu bëgg nu mu mel ko ah. bu ko defee boobaa ñëpp ñu ko gisee dinañ xam ni kon nii la daara wala mel hmm. waaye ñoom bu ñu bëggee defar kon dañuy ñëw ci ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi hmm. alxuraan yi hmm. ñu laaj leen nan la daara war a mel ak nu mu war a méngoog jamono kon loolu yaakaar naa lu am solo la kon suñu tomb bu mujj bi mooy al manhaj at yi mooy méthode bi nga xam ni euh, Serigne Issa Mbacké mi ngi koy jàngale ndax li tax maanaam du daf ciy sori loolu waaye li tax ñu bëgg koo xam mooy mhm. tey Mbàkke ku bëggoon a ñëw ni man kat Serigne Issa laay roy ci jàngalee alxuraan mhm. Serigne Issa laay laay roy ci ni muy ni mu tëralee daaraam la yaakaar naa man mi bokk nañu lool sama yéene tey su ma mhm. demoon ba taxawal daaray alxuraan dama naa ni Serigne bi di jàngalee noonu laay jàngale ndax gis naa xale yàgg yàgg naa ñëw ci daara ji yàgg naa fi loolu gis naa maanaam xale yi fi bind alxuraan ak xale yi fi mokkal alxuraan bari na ñi fi mokkal alxuraan ak ñi ko wàcce bari na loolu léegi Euh, méthode bi nga xam ne moom nga tërale di ko jàngale ba xale bi nga xam ni sax alif musta dugg ci boppam nan la alif di gaaway a dugg ci boppam naka lay gaaw a euh, wàccee alxuraan naka lay gaaw a mokkalee alxuraan booleeg tamit ndax gisaat naa beneen méthode boo xamante ne gisuma ko ci yeneen daara yi mooy xale bi waxtu bi mu commencé jàng firi ji ci lay commencé xam ay farataam ak i sunnaam te du ko liiragul ci benn téere loolu yaakaar naa man fii laa ko njëkk a gisee nga bëggoon ñu bëggoon nga ni ci ay leeral mm-hmm. Mm-hmm. waaw xam naa ba tey sëñ Seyd mm-hmm. laaj nga question bu am solo. Mm-hmm. Euh, boo xam ne xam naa ne ñëpp koy soxla waaye ñooñ dara rawatina. Mm-hmm. te ni nga ko waxee bari na lool ñu koy ñu koy gëstu. bari na ñu koy laaj si. bari na sax ñuy yittewoo njaboot yi ñuy yar. ngir xëy na loolu man a rogalaat ci ñoom. ñu sant ci yàlla baax mooy rek li ma wax ne. li ci jiitu nag mooy man dama jël méthode Serigne Touba. méthode sëñ bi laa jël. loolu it mën naa la koo tënkal ci. ayatil quraan yi may bëgg a wax maanaam bu njëkk bi wa yuallimul kitaaba wal hikma ma yusakkihim ca suratul baqara aya 128 maanaam boobu sax xëy na dafa jiital wa waaye boo delloo ci suratu ali dangay fekk mu naan euh, wa yusakkihim wa yuallimul kitaaba wal hikma maanaam ñetti yooyu laa tënk daara ji man maanaam daara ji dafa tënku ci defar nit ki mooy yar ñaareel bi jàngal ko hmm. waaye yee ko hmm. méthode boobu nag xëy na danaa ci koose sama moroomu sëriñ daara yëpp ñi ci tënku alhamdulilah rabbil alamin yàlla na yàlla barkeel hmm. ñi ci tënkuwut ñu ñu tënku ci ndax temps bi moo xat léegi yaa ngi koy wax ci biir wax ji ba tax na méthode jàngale it nag ginnaaw bu ma waxee xam naa danaa ci ñëw ci kanam bi nga xam ne yor nañ ko ci itam macha allah ndax euh, xale yi léeg-léeg nga indil ma xale boo xam ne damay xam ne liif nekkagut ci moom loolu du ma jaaxal la waaye la may njëkk def rek mooy saytu ko ndax dafa ferul uji wala ndax léeg nit ñëw indi ma xam ne dafa naqari xel léeg-léeg ma def bañ jàng fekk xëy na sax ma naam bañul jàng naqarul xel dafa ubbi kuur ci alxuraan léegi nag foofu ñun liggéey suñu liggéey dégg dégg foofu la nekke def nga nag lu am solo tey nga indil ma maanaam waxukaay ngir ma mën a tasaare loolu ndax dafa bari ñoo xam ne xëy na da leen a ump méthode boobu ñu yor ñun gis nga bu xale bi dikkee du ma am soxla ci na delluwaat kër ga nga tari ko mu tari danaa ko tënk rek ci misaal baatu maanaam bismillah wala ma tënk ko ci alhamdu maanaam baatu fatiha bi alhamdu rek. Mm-hmm. maanaam tey boo ñëwoon tey jox ma sa doom. Mm-hmm. ne ma da nga bëgg nga jàngal ma ko. nga won ma ginnaaw ma ne ko neel alhamdu. Mm-hmm. mu ne alhamdu alhamdu alhamdu ba man ko. mu dellu ci kër nga ne ko loo jàng mu ne alhamdu nga ne ah, sama doom ne yeggu daara ja waaye mi ngi tare. waaye léegi yow nag nga ñëw ne ko ah, léegi bindal ko alhamdu boobu ne ko léegi waxal ma lii araf bii. xamu ko. léegi boo ñëwee ci daara ji may njëkk def ak yow rek. mooy xuruufi alxuraan lay teg te bañ du ma ci am ko yàkkamti nag maa koy defal sama bopp mm-hmm. maanaam alhamdu bopp ma wax mm-hmm. dama koy bind xaraf ne la lii ak alif la mm-hmm. lii ak laam la lii ak nangam la ba ah, fàtte bi jeex ma ne la ma teg ci masque muy àll ah, am du misaal lay joxe xam naa duñu mën a jaar fépp ngir ni ma xam ne man ni lay jàngalee xale ba macha allah xale yi ma jàngal sant naa ci sama borom bu baax yaakaar naa ne macha allah foofu fi la xale ubbi ko bu ko defee bu jàngee ijji boobu da koy jox temps ñu bari nag xëy na diggante boobu mën nañ koo yàkkamte wala moom ñu baral ko wala sax ñu taxañal ko xale bi am na sax ñoo xam duñ ci jaar mhm. man ah, xale ñëwal na ma fii mhm. yàggu dara gis naa ne mu ngi toll saar yu sori waaye tey ba fii may wax ak yow léegi de moo fi daanaka lu gàtt weer tafaate boobu jeexagut mhm. araf yooyu laa ko tojal ne ko araf yi da koy xam foofu bu xale bi jaaree dafa am ubbi ko ci alxuraan nga bañ ci yàkkam ci fexe balaa moo jàll mu feri ji ijji boobu nag dafa xaw a bari sew soo lool ci man mm-hmm. ndax xëy na waxtu yooyu taxaw bi du ko xaj maanaam du ci xaj mm-hmm. waaye kon dama la koy tojal ne la nii laa koy mu bindee baat boobu mm-hmm. tojaat maanaam jëlal la faatee ba mu jeex takk ba amin ja ci benn araf par araf am na ci xale boo xam ne araf bi képp la mën a jàng am boo xam ne bind la mën a jàng buñ ci noppee teg ci masque buñ ci noppee dugg ci araf abajada yi araf abajada boobu képp mën naa ci defar xale mu xam araf yi nekk ci alxuraan hmm. waaye ca kaw méthode ba ma koy defee hmm. ndax masque du la të masque yëpp dama ko indi hmm. araf yi abajad yooyu muy ñaar fukki araf ak juróom-ñett buñ ko jàngee danaa la ko jàngal ci masque yi am yëpp muy masque yat gi masque ak lonk gi masque ak ñaari masque yi masque ak néeg gi yooyu nga wax ay dàmm ak rafa ak kasra ak nangam bu ko defee yooyu boo ko defalee xale bi mooy waral araf bu mu tiimati mën na ko waxal boppam loolu boo ca génnee yow da ngay noppalu xale bi noppalu waaye lii bu ko bu xale bi defut yow jàngalekat da ngay sonn xale bi sonn mhm. ndax moom fu muy jàng dañ koy sa fi mu toll nii ma lay waxee nii tey bu ma nee xale bi jëlal bind mhm. du woon maa koy waxal du woon maa koy sa moom day xam ne bind suba la war a jàng day dem fee jël ko boppam boole ko boppam dem yoonam mhm. kooku desa kooku nga xam ne kon ubbiku na bu ca jógee waxuma la sax alxuraan ji waaye téere bu mu bëggatee liir mën na koo liir yi ak lépp ci yam lu mu teg mën na ko liiral boppam mooy tax fi gis xale yi xasida bu leen neex ñu ubbi ko wala nangam loolu daal diir bu ga bu gudd la nag mm-hmm. boo xam ne moom ci daara ji moom amuñ ci yàkkamti mm-hmm. léeg-léeg nit jox ma xale sax mm-hmm. yàggul dara mu ne xale bi daal daa ñëw kër moom ma koy laaj mënta tari daanaka ay ree damay jàpp dama naan ndeysaan xam naa rek moom ndeysaan na waaye ñi xam ne xaar nañ ko daal xam naa ne rëccuñ ko waaw yaakaar naa am na jëmu jóg joo xam ne ñu ngi koy wax jotaay bi waaye da doon rëbb fu fu doomam waaye keroog bi bi mu fi ñëwee nga xam ne at at yu njëkk yi sax da def bu jàngee wàcc ñu yóbbu ko mu dem ñibbi waaye den na ba daanaka yeneen jabar da leen doom ji tey fi mu toll daanaka macha allah sori na lool te lim jàng bu jeexalee foofu nag ba nga xam ne fer na ji ma war koo jàngal téere ni méthode moom sëñ Seydou xaw naa xaw naa kii ci daara ji nag bëggoon naa temps bi may ma ko sax ma toj ko noo xam ne bu ma paree kii jàngale sax am na loo xam ne dana ko ci mën a jëriñoo ndax bari nañu koy laaj loolu bu noppee foofu nag ba nga xam ne xam naa ne araf tëwatu ko masque tëwatu ko nu muy boole tëwatu ko nu muy dara tëwatu ko ci ca laa koy doog ko jox nag téere téere boobu du ma ci yàkkamti foofu nag diggante alam nasara ba naa dama koy def ndànk-ndànk ngir li ma ko doon jàngal ci ay araf ak nangam foofu dama ko fi ko fiy def ndànk-ndànk mhm. bu ko defee bu ca jógee nag ma indi programme mu daara ji mhm. xam na ne daara ji fii moom duñ jàng yi lasal dañuy jàng di mokkal mhm. maanaam programme bi ñu yor boo demoon tey kër sëñ Soxayb moo fa am jàng alxuraan mokkal ko tari ko bind ko moom la ñuy def fii boo ñëwoon tey daanaka lu mu gàtt gàtt li nga xam ne wàcce nañ fi daanaka jege nañu juróom fukk ñi nga xam ne fi lañ fi lañ wàcc alxuraan mm-hmm. te wàcc ñu daara ji nag yëmbut tey ji rek am na ko wàcc tey mm-hmm. waaye wàcc ñu daara ji moom yëmbut mm-hmm. ginnaaw bu ñu wàccee itam am na lim boo xam ne fii lañ mokkale ay góor ak jigéen toll nañ ci fukk ak juróom daanaka wala mu romb ko ñoo xam ne ñii ay jigéen la mokkal alxuraan bari na lool loo xam fekk ci xale yi ñii ñu toog nii ñi doon nekkoon ci fii lañ jàngal alxuraan ba mokkal ko mokkal googu it ci yoon lañ koy teg booy dem dañ lay jël loo bind wet nafar maanaam bind ngay xëy tari ko mm-hmm. boo ko taree ba noppi mm-hmm. ñu jël loola nafar nafar mooy li nga weesu mm-hmm. loolu ku koy jël par isib ñi mën a jël ñaari isib ñi mën a jël ñetti isib ñi mën jël nàngam nga koy nafar li nga weesu di jël wet mooy isib bi nga toll noonu ngay tàmbulee kaamil bi ci suuf jëm kaw ba keroog ngay wàcc daal yaakaar ne diiru li li nga weesu moom maanaam da nga koy tari ci ni ci ni ko maa taree mm. am na ci ñoo xam ne mënuñ koo mokkal mm-hmm. waaye xëy danañ ko miin luñ ci yor mën koo tari mm-hmm. ko defee xale boobu mën naa am sax mën naa yeex a wàcc mm-hmm. waaye fu mu wàccee rek alxuraan mën naa rattax ci moom léeg-léeg bu nit wàccee fii lu ci ëpp nisir lay jël bind bind beneen bind bi te wàcc bu njëkk boo mën a jël nisir rek masha Allah xaw na baax am ñoo xam isib la ñuy jàng ñu ci toppaatee ñaare bu ñu wàccaatee rek ñaareel ñett rek dañuy miin alxuraan lool ba mokkal ko yomb leen am na ci méthode bu ma ci liggéey boo xam ne def naa ci benn benn benn liggéey boo xam ne ku ne mën na ko yor ndax dama ko tasaaree mooy li ko tàmbalee fi xale bi mën a jëlee sumun ma wax la ne xale bi bu dee jël sumun diir bii bu ko amee war naa wàcc alxuraan xale bi bu dee jël robo bu amee diir bii mën naa wàcc alxuraan bu waaye ni ma ko tënk dama ko tënkaale ci programme daara ji ndax bu fekkee dama ne bu bu dee jël sumun ne la semaine bi juróomi fan la ci jàng génn naa ci ñaari fan léegi noonu la at mi yëpp banee xol la ñaata at la war a toog wàccal xuraan ñaata la war a toog mokkal alxuraan mm-hmm. loolu def naa ci liggéey boo xam ne yaakaar naa ne tasaare naa ko ci daara yu bare bare ñi koy ñi ko ñi di ko jëriñoo mm-hmm. loolu liggéey la boo xam ne daal xam naa ne mm-hmm. ci méthode daara ji moom li ma lay maanaam yar ak jàng ak yee benn bu ci nekk dama ciy liggéey liggéey bu yaatu nag taylu taywuma ci li ci ëpp solo nag tam itteel ma loolu tam bokk na ci muy ya bi maanaam fexe ba xale yi def ci ñoom ab yar loolu moom dama itteel lool ci daara ji macha allah it liggéey naa ci lu yaato yaato gannaaw bu yar bi jàllee itam njàng mi moom la wax ne mooy li ma la wax fexe nañ ba ku fi nekk moom boo ko saytoo da xam ne mi ngi jàng muy li ma waxoon léegi ci ay wayu sakkihim mooy yar bi defar gi ndax balaa nga caa def da ko war a raxas wayu xalim bi ñëw muy jàngal bi waaye bu ma noppee nag xekma bi mm-hmm. mooy xale yi nag dañ leen a war a dañ a war ma foofu dama fi liggéey lu yaatu nag ndax mooy waral léeg-léeg sax ma jël ay temps yu yàgg toog ci daara ji man ak ñoom ñu toog may waxtaan ci ni ñuy doxee ci àdduna naka la nit ki doxee mooy waral yi ngay wax nii xale bi day day day jamono bi muy jàng day gis muy jëfandikoo loo xam ne borom xam-xam bu mag nga daan gis sax ne kii de borom xam-xam la moo koy jëfandikoo fekk xale bu ndaw bi sax xëy na jàng ko ci téere yi bi ma demee ba at yi mujj laa leen mm-hmm. lii ma lañ daan wax mm-hmm. mi ngi ci téere sànkam ci téere sëñ Tuubaa yi wàllu yar bi ni ma koy tra ni ma koy ni ci daara ji ci di ko jàngal ci olof laa koy wax ni booy def nangam defal nangam waaye tey boo ko toppee da ngay dem fekk ci téere sëñ Tuubaa yi comme xam naa ne ay xale laa yor rek naa boo tey téere yi di ko bëgg jàngal ñu boo ko alxuraan ji mën na la indil jafe-jafe léegi nag ma koy saraa noonu ko wax ñu koy jëfandikoo ba ta na wàllu yar bi tam bari na ñoo bari na ñoo xam ne sax dañ naan man de wax dëgg yàlla fi ma dëkk am na daara mhm. waaye ni ma déggee yar bi daal moo tax man moo sañoon sama doom ñëw fa mhm. moo tax yar bi tam lu ñu itteel tey dafa xaw a tuuma ranke ci jamono moo tax ko ko daal mhm. xam naa def nañ ci ay liggéey yu yaatu yaatu macha allah ah nangu nañ ci sonn ci maanaam teg ko ci daara jeeg nañ ciy doxalee dañ koy jëfandikoo dañ koy jëfandikoo seen biir nag waaye loolu dama ci wax a xale yi ne leen la ci ëpp solo rek te gën cee gaaw mooy yow yow miy joxe lettre bi message bi fexeel ba li ngay joxe nekk ci yow. Mhm. démb rek bi waxtaanu démb yi lépp daanaka ci loolu laa ko tënk. Mhm. neen tey bu fekkoon ne dama daan leen bu kenn wax mhm. la ci daara ji nga nekk ci biir daal dégg ab xale wax kàddu gu ñaaw muy ñu baal ma ci kàddu gi saaga. daf cee tumu rankel lool. bu rëccoon ab xale da nga gis mu ne xiin xiin fu sëñ bi nekk. ndax la ko waral dama leen di yar ci kenn du ko def. tey fii ma toog ci biir néeg bi tey. ci saal bi ñu toog. xale boo seen mu ñëw aju bi dugg rek neel jàngut benn xale buy jàng ci daara ji doo gis mu ñëw rek ajuróor bi dugg am na ñu leen ko jàngale booy dugg ci nekk taxaw ci bunt ba diisoo mm-hmm. wax asalaamaaleykum buñ la wuyoo nga xaar bañ na la bismillah mm-hmm. buñ la wut nga dem fa nga jeg woon mm-hmm. loolu alxuraan la xam nga boobu ko ñëw def leen aaya ba mën naa mu am jafe-jafe ci ñoom maanaam yaa ayyuha allazina laa tadxulu buyutan xayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha saalikum xayrun lakum jooju muy wax loolu loolu laa bëggoon a wax maanaam alxuraan nee na bu leen dugg ci benn néeg te diisoowu leen bu ma koy wax xale yi dama naan leen loolu alxuraan la mhm. tey boo ñëwee ci ni may jàngalee ci wàllu yar mhm. ne maanaam bu leen dox yónneen ci ay safaan mhm. boo demee ci alxuraan da ngay fekk suñu borom ne wa wassayna linsaana bi waalidayhi husna wa in jaahadaaka xalaam tusrika bihi maa laysa laka bihi ilmun falaa tutihuma xam nga loolu tey damay jàngal xale yi ne ku leen mën a yónni lu bon bu leen dem waaye maanaam ku leen mën a yónni bu ku leen yónni na ngeen dem waaye ku leen mën a yónni lu bon dem daal seeni wayjur daal ne leen li ko waral mooy alxuraan moo ñu koy tere maanaam leeral leeral leen ko waaye yëpp da ngay gis ne boo bëggoon ñëw tey def ko ci téere yi mën naa mu am jafe-jafe loolu moo waral tey gis xale laataa muy àgg fenn si mën a jàng lu baree bari téere yi mhm. boo ko bu xale bi wàccee wala mu wala mu mokkal it danañ ko dugal ci téere yu majalis yi comme ni nga ko waxee nii am na téere yoo xam ne dañu ko koy jàngal téere yi moo doon wax tey ma wax ci olof après dañu koy jàngal moo waral nga ñëw suñu yi di wax xam-xam di wax ci yenn téere téere yi wax ci téere Sëñ Tuubaa yooyu dañ koy jàngale waaye li ëpp solo daal dama ko def ci biir yar bi maanaam di ko jàngale ci biir daara ji ci biir doxewu daara ji ma leen di jàngalaaleel euh, loolu macha allah Mbacke jërëjëf Mbacke kon euh, leeral foofu point bu am muy méthode bi nga xam ne ci lay jàngale ci lay yare boo xoolee li euh, arab di wax naan xaatibin naas ala xadri uqulihim mooy nit ñi booy wax ak ñoom da ngay wax ak ñoom fi seen xel toll man loolu am naa ci seede lu baree baree bari fii boo ñëwee ci xale yi daanaka bu ñuy dugg ci bërëb dañuy taxaw ni asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaam ba man ñetti yoon daanaka bu ñu leen wuyuwul aaju di leen taxoon jug sax dañ dañuy wàññeekuwaat mm-hmm. te loolu comme ni ko comme ni nga ko waxee sëñ bi jàngale na ko ci nax ju mm-hmm. waaye bi nga xam ni mm-hmm. tollagul maanaam ci liir ay téere di xam ne muy firi mm-hmm. Mm-hmm. daanaka lépp da ko koy tënkal ci wolof mm-hmm. bari na tamit ci conférence bi jàll mooy bisu alxuraan bi nga doon def fii yaakaar naa bari na xale yoo xamante ni ñu ngi doon wax ci thème tem yoo xam ne actualité jëm ci lu alxuraan wax ak borom borom xam-xam di ci wax ah. te lépp ci olof lañ ko wax ah, ah, te dañ koo dënk ci olof indiwuñ benn aaya boo xoolee gis nga sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa mën na wax ak nit ñi hmm. waar leen ci seen borom delloo leen ci hmm. te doo gis mu andi aaya wala hmm. wala wala ab ab xadis waaw kon day mel ni loolu méthode bu am solo la mel na ni daara yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax li taxoon nag ñu bëgg sëñ bi dugg ci point boobu noonu la comme leeral na ci lu bari dañoo bëgg maanaam euh, borom xam-xam yi bari roy ci moom roy tamit ci daaraam ji ni muy doxee ndax yaakaar naa mën mii seede laa ci wax naa leen ko bu baax a baax Euh, lii nii mën la ko njëkk a may ci maanaam ñëw ab télévision di ko jël wala site internet ñëw di ko jël ci muy wax ci wàllu daara xir mën la ko njëkk a may mm, kon loolu dañ ci mañ moo honoré ni tamit yaakaar naa ñoom la ko njëkk a may kon loolu maanaam yokkute la ci ñun mm, wax dëgg yàlla bég nañ ci loolu Mbàkke dañ lay ñaanal suñu borom yàggal la fi loolu te ànd ko wér mm. ba yéene yi nga am ci liggéeyal ko alxuraan liggéeyal ko lislaam suñu borom may la nga mottali ko yaakaar naa royuwaay nga ni doomi soxna nga waaye royuwaay royuwaay nga tamit ci borom xam-xam yi roywaay nga tamit ci képp kuy jàngalee alxuraan bëgg ci liggéeyal lislaam kon xam naa dañuy jox sa kàddu gu mujj rek nga tàggoog mbooloo mi bu ko defee ñu yemale fii émission Dialibatoul Bourour ok jërëjëf sëñ Sayid ñu ngi leen di sant bu baax te di leen jaajëfal xam naa waxtaan yi moom macha allah waaye sant yàlla bu baax mel na ne jéem nañ suñu kem kattan ngir rek laawe biir mm-hmm. bokk yi ak ñiy seetaan mm-hmm. yéen itam ñu ngi leen di sant bu baax mhm. ci teewaay bi mhm. sant leen ci liggéey bi mhm. mel na lu ci bare bari ñu ngi koy topp jotaay ngeen di dara ay borom xam-xam ñuy jàllal lu am solo ñu ngi leen di ñaanal yàlla fa ngeen bëgg yegg ngeen yegg fa sit bi di Majmahun Nurayni itam li ngeen ci bëgg lépp ngeen def ci lu kaw di sant bu baax sa caméraman sëñ Baara moom di ko jaajëfal bu baax masha Allah ndax jotaay bi mel na ne mi ngi mi ngi mi ngi bëgg yàgg eh, ndax waxtu wañ ñëwoon xëy na waxtu jotaay bi ngeen fekkoon moo tax waaye xanaa ku li xel sant nañ la bu baax yow moom suñu nit nga ñu yàgg lool ñu nit ñu lay ñu lay ñu lay safa fu ñu toll nag tey wax dëgg yàlla wóolu la lool it nag ndax man daanaka jaxasoo bëriwul lool mm-hmm. la ko war rek mooy daw yu bare bari ci jamono mm-hmm. waaye nit tànn fi man li yéen daal mm-hmm. daanaka dana dana mbégte lool di jaxasoo ak yéen ndax damay xam ne li may bëgg di ko xencu dama koy fekk ci yéen loolu rek moo tax macha Euh, léeg-léeg buñ ko jégisee itam mhm. cofeel gi moom dara daqu ji moo tax li nga xam ne sàkk nga ko ci ni ma la ko waxee rek mhm, mhm. bari ay ay ay sites yu ko sàkk woon bari ay télévision ba ci suñ mbokk yi nekk Dakar ba ci si télévision yi nekk fi am na ci ñoo xam ne da ko doon ma dëgër lool ci ci ci def ko waaye mel na da yaakaar na daal yiw la woo xam ne itam euh, xëy na bu fekkee lu baax la euh, nekk ci daara ji war nañ ko yaatal ngir ku ko bëgg a ku ci bëgg a roy rek man cee roy kon yéen ñi nga xam ne tam yéenee tax loola yaatu ñu ngi leen sant dina gërëm ñaan yàlla mu dolli ñoo sàmm te dolli ñoo taxaw euh, lépp lu ñu fi waxit li ci li ci li ci jub mm-hmm. yàlla na yàlla def mu dugg ci ay xol mm-hmm. euh, ñooñee tam suñu boon defal leen boole leen ci alla seen yastamiuna xawla fa yattabiuna ahsana jami wax mm-hmm. yàlla na yàlla boole leen ci bu ko defee ñun ñi tam suñu boon defal ñu façon ba li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy génnee mu doon lu ñu mën a dégg ñeen di sant baax di leen gërëm wasalaamaaleykum wa waa koy jërëjëf Mbàkke yàlla suñu borom nangu ñaan yëpp barke Cheikhul Khadim dëgg yàlla am nañ mbégte loolu bi ma ko sàkkoo ci yow danga ma ko nangul te gis nañ maanaam fi la jamono tënk maanaam xat-xat yi yooyu noonu nii la daara ji tënkee xam nañ ko bu baax a baax a baax kon ñu ngi ñaan suñu borom defal la tawféex di sant baax suñu Bara Gaye mi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci liggéey bi di sant baax tamit ñi nga xam ne ñooy teewlu émission Dialibatoul Bourour di ànd ak mbooloo Majmahun Nurayni TV kon xam naa fi la ñu yemale émission bi ba dimanche prochain incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh